jëm ci boromam di jëmee sax waaye nekk nag saaxib di dëddu booy bokkul ñi gën a dëddu àddina muy Serigne Sadio Bakar radiyallaahu anhu ndax dëddu àddina ak àddina dëddu la bokkul waaye kenn ku ne xam ne ne bu ñu toogee ci tawit Serigne Touba yi ñu def àddina sépp ñu jamono jëpp ku ko mës a gis boo demee ba fekk Touba bu ne ne kii mooy yilif Touba doo ko gëm kon saaxit la waaye waree nekk bu sàmm waaye nag nekk barin taq yi baax lool taraga gàtt waaye nag yaatooy nekk koo xam ne ibnu ñuy jaahidu fii sirrin wa fii alani daa jihaat ci yoonu yàlla ci lu feeñ ak ci lu bu moom Serigne Saliou waaye nag fil hilmi wal hilmi daa daa jihaat ci xam-xam ak lewet ak ay teggin ak yitte ju loolu la ko boromam faye ba foo tourné di ko dégg di ko gis daf da koy teg ba mu yàgg ba ne waaye nag fa siblu kan lay si fii sawtin wa wasbatihi wa fil hujumi la dal ay jaami wal utubi ñu ne sëñ Saliou daal bu ko waxee jikko yu rafet yi ñu ne kuy woy juróom ñu ne sëñ Touba nii la war a ndax gaynde gu mag ak gaynde gu ndaw ñoo bokk na ñuy songe ñoo ñoo bokk ñu ni yuuxoo no bokk ñuy dalee boole ko di faj aajo suru um isa si ta fii ndookaa wu fii juruli aw fii amaakini uxraa mis la xel ko bi barab bu mu mën a doon sëñ Touba fa nekkal kon yàlla yàlla fayal ñu ko barakatu Seexul khadim fayal ñu boolem njabootu sëriñ bi cheikh si xablaat jërëjëf suñu xol sedd na ñu ngi ñaan yalla mu guddal soofal wéré sey cër ñu ngi dellu di santat baax suñu kilifa yi ci jataay bi sëñ Saliou Seck alxuraan bég na suñu xol sedd na waaye di siyaare sëñ Saliou Samb bii nga xam ne suñu kilifa la suñu lépp la du jiitu ngay ñëw ci jotaay bi sëriñ Xaadim Gueye léegi dafa jóge wax kàddu yoo xam ne wax na Cheikh Abdoulaye nii nee naa ko jot yi waaye moom mais lu valable ci moom ñu jottali ko ñun mën nañu ko koy jottali teraanga ji ngi defal seen i xarit dafa insisté ne Cheikh Abdou Lahad nañ ma ko waxal sëñ Saliou daal di leen dimbali lii ma sotti ko jàngal xasida moo ma fekk léegi fi ma ne jox ma ko ma andi ko fii jàng njëkk ko jàng ci service bi kon Cheikh Abdoul Ahad may ma ci loolu sëñ Saliou suñu xarit nee na loolu bég na ci lool xolam xolam xolam sedd na si itam nee na mi ngi lay ñaanal suñu borom fay na barkal seen xarit yi kon ñu barkeelu ci màggal gi rek te wàcce kàddu yi di ñaan ko déglu yéen a ko ko déglu ay déwén yi déwén mboolem murit yi déglu leen ma deeti way bésëb Sëriñ Bamba ba mooy di suñu safar 1895 18 safar la Serigne Bamba dékku yeen bax te muy ji fajar la génn mbàkke ànd ak ña ko dar ñoo ñaajoron rasulu ñooy ahlu badar fii sëhëri safar la ànd ak ahlu badar ahmadoo eh gore ahmadoo eh sagal safar su ma heure di 18 heure 18 man daam su ma doon weer kon ma doon weeru safar ahmadoo eh ne woon nu màggal weeru safar sant la ko yàlla sa bésab bisub safar fàllu borom dindi sëñ fàllu ne bésab bisub safar nan daje Touba sant la Cheikh Bamba bu moo tax ku màggali bésab bisub safar jixaar nga aj nga umra nga am nga defar ñu teg ci nekk malaaka ñëpp fay teew ngir dara jëy sax Bamba bis bi lay siiw njaay mépp dox ba foo ko marché du bàyyi njaay moo yorum réew safara si gaaw pël yaa ngi jaay xar yi jaay nag yi bay a teew naaru gànnaar gi leen pulaay seen été ngi teew a teew avion ak saxaak ilikoo seen été ngi teew mboolem fii safoo wala sax ngay koog suuf juuti yi ak assurance yi seen été gi teew station total seen ak audit si soog a teew Touba wala yeneen xew ne seen été ngi teew mboolem ñu fi aar askan wi sappoon police gendarme croix rouge semis seen été ngi teew mboolem ku fi ministre tôlier organisateur mécanicien électricien sab été ngi teew mboolem ku fi tëyër wala ngay jaay katu pisi noblees jesnees góordu sab été gi teew moo lépp fi luyee ay rajo wala ay ay matelas laa ay baas sax sab été gi teew moo lépp fi luyee ay lampit wala ay bool moo xam palaat wala ay sees sax sab été gi teew màggal gi mooy lépp moo lépp fi jaay koko këriñ mat ak gaas isin gi teew moo lépp fi jaay musoor asata ndoxum kireen kir daan fëriñ kaasu asata sab etee ngi teew mboolem ku fiy jaay passami wala weer misel makkaruuna spaghetti couscous sab été ngi teew mboolem kuy jaay ceeb ak diw soble nen oromose kilaaj jollee ki mu tàdd sab été teew mboolem kuy jaay kilimanti ndaama raas woo gusi karawet poobar bineegar sab été teew mboolem kuy jaay salaat concombre pomme de terre mayonnaise bor kaani sab été teew mboolem bu yëg bisaab ripaas ngooñ kankay yiire uude uuse sab etee gi teew mboolem poisson ak lu fii kafe xeeti meew tampiku sifre ardo seen etee gi teew liman ananas liman gasal gasal pom esparayit rani malta seen etee gi teew liman raisin banaan ak orange pommi teew fromage kër na boobu seen etee gi teew liman ataaya naana fantaayit sooga teew xaal ak taaf sungum elifut seen etee gi teew seyxunaa sagal islam seyxunaa sigil islam Seyxuna teral islam jëfam jékk am maanaa tax ma doo dalal xel yi tax ma doo sellal ruuy tàggat musique jaamu nuy jaamu am bamba moo ñàkk nawle ay waay ku may géewlee nu joom bi kii nu xet ci li way ko yu am maanaa siñ bu mag bi fàttewunu daa mënoon na naa talunu waaye fu mu tolli di ci nu jàmm ji nu am mooma barke baa ngi dal na ko ne jàmm jaa ngi am na fu ne see faak sant fu mu ne yoon yoonu jàmm googu wér na ahmadu moo jagal mbiri nangu ko togg bam ñor te mosu ko nan jëfandiku te sant moo am ah daam seen 18 safar sant nañ la bu baax a baax a baax a baax Serigne Fallou Seck raaya dégg nañ suñu xol sedd na Serigne Saliou Samb moom nag moom la ñu jox kàddu gi man moom xam na ni man ñan moom mooy sama xarit ku ne laay déglu ci yoonu Serigne Touba waaye moom xam na ni fépp mu nekk fekk naa ko fa su ko woowee quartier général fii laay jaar ndànk dem TFM. fa laa nekk tànk parewul dama ñibbisi sama xarit la may defal ay teraanga yu bare bare bare bare bon Serigne Saliou Samb ñii de Serigne Dame Sène nee na yéegal nañu baar bi mais xam naa ni di nga ko yóbbu ci aras man xam naa ni baar bi dootu wàcc fii ba bët day gën a kawe barke Touba bis bi nag li muy rëy rëy tedd tedd li bis bi di baax baax dafa am ñoo xam ne lañ ko duppee dañ leen tuddee bis bi ñuy ay parrain di ay waa kër sëñ Bamba di ay jullit di ay gor di nit ñu baax di ñu bëgg dëkk bi ñu tudde leen bis bii wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lilaalamin sayidina wa nabiyina muhammadin almakin وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا شيخ الخديم وعن قدوتنا العظيم مام شيخ إبراهيم فعل باب المريدين نيو gën ñoo jege bu ñu nuyoo Serigne Cheikh Ibrahima Mbacké di sëtu borom bayteeg maqaama maam Thierno bi demoon Ndar Thierno bi dëpp loxoom juróom-ñaari at ci laax bi mu tàngee delluwul ginnaaw. jërëjëf nuyu di leen ziar di nuyu bu baax a baax suñu jëwriñ Mamadou Diagne.

pour teew ji bi at gis ne que ngeen di loo kon nag li may ñaan kon boog li may ñaan di ko ñaanal waa dëkk bi di ko ñaanal waa dëkk maase ñaanal ko moom mii ñaanal ko moom mii yàlla na doon ministre ci barka Cheikh Rafal bu ñu demee ba mu fi dellu soit at yeneen yi ci kanam yàlla na nekk président de la république du Sénégal yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barka Cheikhul Khadim nee na mi ngi ñaan ci jëmtaan suñu borom yi yàlla na ko suñu borom yëkkati yokk ko li mu bëgg lépp suñu borom defal ko ko ndax moom mii. wax deug yalla duñu umbeunte ñom ñaar ci dara man xamna ci dara dañuy deggante telephone lu bari di waxtaan di nos ay mbir te lepp lum ñu wax jafé ko xamé wu ci ñun kasu rajab wala magal wala gam waxtu wu ci ne fu mu xamé ni fofu war nañ fa def dara yekkati na addiyaam def fa bon yalla nako yalla taxaw di ziaré seigne Tamsir ñang bu baax ak mboolem ñi mu àndal di ziaré monsieur le maire Matar jaw mom fii la dëkk ñoo dëkkandoo mom place bi place am aha ñi ngi lay di ziaré Moustapha bu baax a baax a baax aladi ñi ngi lay ziaré bu baax a baax a baax atumaan di ziaré seigne salim Diop saw ñi ngi lay di ziaré bu wet nee mom moom xolam sedd na teewaayam bii mu fi tew ñun day xam nañ ni bari wu waaye saa yu wootee dëkk bi woote du tànkam la mukk bon jotam gi loolu moo waral lum ñu ci jox rek ñu doyloo ko yàlla na ko yàlla taxaw barke yonent yàlla muhammad sallallahu jër wa ngeen jëf ak mbooloo mi fi teew yëpp yàlla na yàlla sàmm ñëpp aar ñëpp taxaw ñëpp ci barke borom Touba jërë ngeen jëf bon nag ñi ngi sant bu baax nag di gërëm am na suñu kilifa ku fi ñëw léegi sëriñ Abo Mbakke ibnu Cheikh Amsa ibnu syekh abdul ahad aksina legi ci barab bi ñu ngi lay sant bu baax mbàkki bala ay sa ko ci yow ñaan te dila ñaanal guddu fan go ànd ak wér bis bi moo ko jité moo ko yore waaye daa yëkkati lépp jox ko Moustapha Yaafara bëgg Serigne Saliou Mbacke moom mooy parrain numéro un mom lañ ko tuddé kep ku fi ñëw mom nga fekk ci kep ku fi ñëw mom nga fekk ci Serigne Saliou ku bëgg Serigne Saliou Mbacke ngi talibem la mu ñew nak andak ay bokkam yépp ñi tok ay digeenam ay rakami digeen ay rakami goor ay magam ak i bokkam ak i dijaayam mu andak ak ñoom ñëw ci bis bi Moustapha Yafa di doomi dekk bi nak fi mu tok ni ci la juddoo fi la fooye fi la yaro fi la màggee di transiteur bu mag mais lepp lu mu am da koy indiwat ci biir dëkk ci lepp lay yëngu lepp lu dugg ci nopam dem na ci li man ci barke Serigne Touba kon Moustapha Yafa Serigne Abdoulaye nee Serigne Abdoulaye Moustapha Yass mi ngi nii waa jaa ngi nii. waajoo gërëm muy gën di baaxee waajoo gërëm muy gën di baaxee waajoo ko war na xarnu bi Serigne Touba mooy fekk waa Gundarandaay nga ful ko boole koo ci gaay ni lamp ku sopp Cheikh Ibra Fall lamp ku sopp daa bay Sey Nebu Njaay Amadou Fall Seyra Njaay bi ren jege nga masa am moom tabbal këram ay junni daan la daan joxe faal ndax li ko doomi jaara may leera naay moom naa tey way kër wa Seex Samba jaara may moo tax dëndam mbay diine di fa leerale mate mwisi mwisi kumamba Muriga Olumai mori mbakwe na mbakwe Ginseni yafyala yonan chamba Mbinga mutamin murikasa Kabam Sheikh Afan Sheikh Bamba Mahmudah wax monsieur Bamba ay mu daal di bàyyi yoneen bu ci xamul Cheikh Ibra Fall lu lenn ndigal lu dul ndigal li lawoo ci baaxaayu seen Fallu Cheikh Ibra Fall loo ci xamul tànkam yooya mos na géej bu jëm ci lenn lu dul ndigal li lawoo ay kenn du moom bi laa du kenn. Cheikh Bamba ko jiital waaye li ma di daliitoo te bu ko ne na leen ginnaaw ba fa fi juutu ila la la la jaarale nga dem jox jaarale nga dem jox ku bëggoon yàlla dalal doon tedd moo tax ba tedd na Serigne Bamba mi nee leen ko jàkk bu kenn piis ku bëggoon yàlla dalal doon tedd moo tax ba tedd na borom bee ko jox ay may dama yooya day lu fes dalal na ci boole nit ñi tabe ëpp na waaju koy bëgg day bëgg waaja koy bañ mu du turus ku bur yàlla yoo cam ka koy jéppi alkuna ba lislaam ne fii tax ba def donga maa ginaas borom tuuba moo ko ma jégal moo tax ba jekku na waa kay jërëjëf yal leen yàlla fay xam nga sëñ Basiru kii li wax moo gën wax Serigne sa man xam naa ne sax maa ngi lay soog a gis nii suma bët ñu jàkkaarloo waaw barke Serigne Touba man ñëw naa ba doy la taxaw ma ne yaatoo barke Xaadima Mustafa waaye li ngay wax ci Serigne Touba dafa neex. ndax wax wax nangam man waaye li ci xam daal mooy boo ko waxee neexaay bi muy neex si tubaab nee na loolu nag moo ci xam nga ab dëgg fi mu nekk yéen waxtaankat li ngeen li ngeen def dafa am solo. na yàlla sàmm la taxawu li may soññee rek li may daaneel ab soññee la mooy nañu gën a góorgóorlu ci xasida Serigne Touba yi ndax fii may wax ak yéen man tur yàlla li ma ci xam ñi ko fi xam bariwut waaye li gën a gaaw man a yéege nit ci diggante ak boromam bu dee teraanga yi àdduna yi ñi ko ci li ko gën a gaaw maye mooy xasida si tubaab yi sax leen ci te dinaa leen wax secret ci ñii di jàng xasida yi ak ñii di waxtaan ci sëriñ Tuubaa ji baas yi yaakaar naa sëñ Mor Gueye mii mas naa ko wax dee leen moytu bu baax alal jiñ leen di joxe ci biir baas yi nañuy def kem kàttan di ko def fu neex sëñ Tuubaa loola li ko waral li tax ma koy soññee toujours mooy nañ ma dig dimbali gi jëm sëñ Tuubaa rek teewlu li may wax loolu li tax ma koy soññee toujours mooy bu leen jàpp ne bu nuy jàng xaside yi wala ñuy waxtaani Serigne Touba ñiy joxe addiye yi mooy nit ñi ngay gis rek déedéet Serigne Touba dafa am yeneen xeeti mbindeef yu ko yaakaar di joxe seen alal te ñooñee seen alal ku ko jëme fu dul fu neex Serigne Touba ñu fàttali moo waral yenn yi ngay gis feebar yeeg xew yeeg baat yu yàqu yeeg yooyu yëpp dafa am alal yoo xam ne mën ta waaye tant que nit ki li ñu koy jox ci base yi ngir sëñ Touba mi ngi koy def fu neex sëñ Touba toujours aw turam day gën a jóg kon loolu nañ ci gën a góorgóorlu bu baax bu ko defee ñii di waxtaan ci sëriñ Touba nañ am fulla ju toll ni waxtaanee sëriñ Touba gis nga ñii ngeen di gis ci internet ñuy croiser ay waxtaan kat ak naan kii daa bokkaale daa set gis nga bis bu ngeen leen bàyyee xel ba bàyyee wax mbaaxu sëriñ Touba ji bëccëg ngeen di torox. li ngeen di waxtaan ñoom waruñu cee bëgg Serigne Touba amul morom ki ko war a wax bu fekkee ne la muy wax man cay seetaat seet mbégteem ki nga xam ne jàpp na ne Serigne Touba am na morom ab dof la man damay wax ni waxtaan bu ma def ci Serigne Touba génn bu ma defoon waxtaan Serigne Touba génn fekk xeet teeg yooyu ñu apprécier ko damay xam ne nekkuma ci dara damay xam ni waxtaanee wu ma Serigne kenn lu ma ko. waaye ñoom bu ma xëyee gis ñu croité ma ci laay xam ne li ma doon def baax na neex na murit yi foofu mooy tolluwaay bi jàngkat yi lu ne da ko dégg lii lay defat laa lay defat waaye man daal li am solo mooy kuñ ci jox micro woo jàngee na neex. si sëñ Tuubaa nee na buñ jiitu woon alxuraan alxuraan dina leen tudd te ñaari taalibe Serigne Touba la bokk ci njabootu Serigne Touba Ah, amoon na itam taalibe bu ràññee ko buñ daa wax Cheikh Issa Diène Cheikh kenn ku ne xam na ne bi muy ñëw ci sëñ Tuubaa dafa tëdd guddi jàng alquran suratul xajj ba toll ci aaya bi alquran di wax fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya xaawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mazid gént lay jox ko weeru ndeyjooram di ko leel bi ko rasulullah di leel weeru ndeyjoor bi jërëjëf sëñ Cheikh Issa bi mu yeewoo meew bi dafa saf ci gémmiñ gi mu topp leer gi leer gi sooy si ci jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba ci bi mu xëyee ànd ak suuri Jóob ñëw ci sëñ Touba boobu sëñ baa ngi ku duus bi mu agsee ba barab bi nga xam ne moo di mbal ñu toog ci ron garabu déem di dallu Cheikh Issa jenn ne ne ba mu ne sëmm foofee suunu bu gépp ruugu sant jenn te nar a wuyoo jenn yaakaar Issa jenn fekk na ma ci garab googee jaayante ak man te gisaguma sëñ Touba kenn ku ne xam na ni bi mu ñëwee ci sëñ Touba ak dëpp néeg rek la ko sëñ Touba liggéeyloo yiwi ko bokk na ci kàddu yi ko sëñ Touba mooy bu ma wéyalee sa liggéey bi di nga yóbbu ci rub jàmbur dana am ku xëy ci yoon bi wala mu gont ba ngoon jot war a am dara nga yóbbaale la mu am daal di koy wàcce mu dem Cheikh Issa Diène moom dinaa wax ne toujours ne bokkoon na ci ñi daan wane dëgg-dëgg Cheikh Ahmadou Bamba ndax sëñ sëñ Touba daa man benn tubaab boo xam ne daa mës a ñëw vacance bi mu vacancé gis na jabar ji daal bëgg sëñ bi lool mu xalaat ne kii bu ko bàyyee day tuub mu këfaat jabar ji dem ak moom France bi mu demee ak moom France jabar gi nekk fa ba am doom ba yàgg am occasion daal di daw ñëwaat ci réew mi jabar joojee bi mu ñëwaatee ci réew mi ñëw ñaareem tuub ci loxoy sëñ Touba. bi mu tuubee ci loxoy sëñ Touba sëñ tubaa ko tudd tuddee tur woon tuddam sëñ Touba soppe ko tuddee ko Aïssatou Mbacké muy Astu Mbacké doom ji mu amoon mu nekk doom ju góor sëñ Touba tudd ko Aliyun muy Seydina Aliyun Aliyun moomu jërëjëf Sëriñ Saliou Aliyun moomu kenn ku ne xam na ne ab tubaab la woon Astu Mbacké ndayam di ab tubaab soxna Astu Mbacké sëñ Touba day def ku mu ko dénk nga téye ko ni nga ko war a téye doo ko mën a téye ba yàgg ñu ne ko Isaa jënd na boo ko ko joxee mag ñu ne ko dina ko yor sëñ Tuubaa yónnee ne wóol leen ma ko bi saa Isaa ñëwee sëñ Tuubaa ne ko Isaa mu ne ko Mbàkke mu ne ko dama laa bëgg na dénk astu Mbàkke nii ak doomam Aliyun saa Isaa ne ko Mbàkke boo ma leen joxee dana ñu wel ci sama kër mu ne ko bismillah mën nga leen a yóbbu Cheikh Issa yóbbu leen këram tabaxal leen dëkkal leen asu Mbàkke bi mu demee ba toll ci sukuraat Cheikh Issa daa ñeewentu doomam ji muy Aliyun ba da ko yónni Ndakaaru laata muy ñëw fekk nday mu wàcc waaye doomam jooju di Aliyun moo nekkoon si borob Cheikh Issa Dieng nga xam ne ab tubaab la waaye moo daa dawalal Cheikh Issa bi sa Issa Dieng tollee ci war koo fasal soxna day def fu mu aw ñooña lànk ngir mag ñi sib nañu ab tubaab mere nañu tubaab lool ci jot jamono kenn lu mu ko may Cheikh Issa Dieng jël doomi nijaayam bi ñeex soxna Faati Bakary Diop daan na ko damaa bëgg nga sëy Alioune mii waaye warlu naa la ci doo ci am dar bu xong lu ngeen am lu nekk garanti naa ko dër bu ñuul lay doon nga xam ne boo demee njënd bu ñu la ko wane mboolem njaboot ki am ak jëmm jooju yëpp ay nit ñu ñuul lañ ñuy taalibe Serigne Touba yoo xam ne taxawaay bi ñu taxawoon ñoom mag ñi kenn xamul lu mu doon. amoon na itam ci ñoom kuñ daan wax xam nga ne Serigne Wédiane Sow ak kuur rek la yàttal Serigne Touba Serigne Touba seexal defal ko li nga xamante ne ji moom la ko defal amoon na it ku ñuy wax Serigne Banna Sow. Serigne Banna Saw kim nekk doolan ci daara ji ñuy liggéey bi ñuy liggéey ba yàgg jëmm ji daa gi sëñ Touba fekk sëñ bi da koo seexal mu dem ak mbooloo meeg coow li bi mu dikkee ziar si Serigne bi mbooloo meeg riir mi mu ne ko mën de Mbàkke damaa bëgg li nga ma defal muy seexal nga defal ko Banna Saw sëñ Touba ko ku la ne Banna bëgg na ko mu ne teg sëñ bi ne ko doxal wooyu mu dem woowi sëñ Banna. sëñ Balla Sow bi mu ñëwee ba toog ci wetu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko waxaatal li nga waxoon mu ne ko damaa bëgg Mbàkke li nga ma defal muy seexal nga defal ko Balla ndax yàgg na ci daara ji sëñ Balla Sow ne ko accëm accëm accëm ne ñokkeen da koy demal sëñ Tuubaa ne ko ah ndax mos ne woon naa la Balla soxlawul loolu sëñ Balla Sow mooy jëm ji nga xam ne bu daa ñëw ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa danaa mag ñu xoolal leen ma ba xam Balla day ñëw su mag ñi génnee dikkaat ne ko waaw Mbàkke mi ngi ñëw mu ne waaw ndax moom day def tànk bu mu yëkkate rek jéego tàkk ci aras te taalibe sëñ Tuubaa sëñ Maxtar Mbay Kéré bi mu fekkee sëñ Tuubaa Mbàkke Kajoor sëñ Tuubaa ab sart loo ko jox ne ko doxal daggali ma sayu si lan mu woon ginnaaw sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa joxale bi ko ne leen jëmm jeeri dem ne ku dul Ahmadou Bamba sañatoo koo liggéeylu mu dem ñëw am fa fukki fan juróom sëñ Tuubaa seexal ko korite gi mu fekk sëñ Tuubaa 1913 bi sëñ Tuubaa jógee Thiène Jolof ñëw Ndiarème 1912 1913 korite julleeg Ndiarème boobu sëñ Tuubaa sëñ Maxtaar Mbay Kéré la ko jiitaloo sëñ Maxtaar Mbay jiite ba noppi mën a ko jàngal xutba bi sëñ Maxtaar jàng xutba bi sëñ Tuubaa dem ci biir woolu sëñ Malick Ndiaye lant noo sëñ Malick Ndiaye ñëw mu ne ko waxal mbooloo bi nee leen ku gis Makhtar Mbaye Kéré bisub tey seeram xaraamal na sawar. loo xam ne dafa ko ci bis bii dafa nekkul ci moom da ko yorul mais lépp lu mu yore dana ko def ci bis bi parce que jaral na ko ko ci barke borom Touba mi ngi lay ñaanal nag wér ak gudd fan ak xam-xam bu sax dàq te yokk. ci barke Serigne Saliou Mbacké Serigne am di nag sant ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ci jiital nag kilifa diine yi fi teew ñëpp ak kilifa aada yi sunu sëriñ yi fi teew ñëpp bàyyiwul kenn di sant ñépp di gërëm ñëpp. ak kilifa yi nekk ci dëkk bi ñëpp parce que bis bi bisam la kat waaye dëkk bi dëkkam la ndax dëkk boo fa juddoo yaroo fa màgge fa wëlbatikuwaat loo am bokk ak waa bi wala loolu nit nga koo xamante nii nit ku baax la ndax xubbul watan minal iman man laa xiib watana foo laay konu sharifa moom nag loolu dalu ko moom dafa bëgg dëkkam moo tax mu nekk nit ku teg Moustapha jërëjëf li mu waxoon ëpp na lii waaye nit moo الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولاه تعالى وسلم إلى الكتاب والحديث شرفا قلبي وخالدي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار في الزواج من على الورى اصطفاه بخلق بعتلى سواه أمده بالنشر والنظام ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فارتوى من اهتدى وجاك ليس فتوى من اعتدى أزكى صلاته عليه وعلى جملة آله وسعبه الملا بالله أؤمن ووجهي أسلم له وبالإعزال زين أختم بالمصطفى له أمت وأفوز إذ جنة القلب به غدا أحوز بان لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير ناس بان لجملة الملائكة الكرام كون رسول الله للخلق إمام بان بقوله بل هداه يوم على الصفهداء سواه باح به الأجداد والآباء به تلى العرباء والعجماء به بني الأرض والسماء وخلق الرجال والنساء جاد له القديم بتقديم قبل ظهور الخلق وتكريم جزاء من أتاه الجنان ومن عزاه فله النيران جذبنا لله بتوحيد وبالعبادة مع التوجيه جاهد نفسه وجاهد العدا حتى أقام دين ما لا يزال واهبا وليما مد لي الباخ الكريم البركات كما ماني عنك المشركات واجعل الباقي شفاء عن قدر وليس الدنيا أسواء القدر مدلي الباقي جزاء بالرباء ولي كان بالذين يباع نزع لي وليس مني يبدو وإنني بإيمان ومزور يقود لي ولا يقود مني إلى من سرت بإذن مني نفعني وبي ينفع الورى وليقاد بالنبي شورى فوزت بقول الله لي وكوني لو به بجاه غير الكون أعين كل مسلم ومسلما وقد كفاني الى مسلما نفى الكريم الضرري ومردي وكان لي في أبد بقردي قلبي قلفا وجسمي سححا ولن زال الشافي المستححا لي يسوق ولدي بلا مرض ولا أذن وقد كفاني الحرد بين لي تبين من لا يقفى علي شيء جادني بالأقفال Touba yi di ko jàng di naan kafe nekk ak dara bi te beer borom Touba yi sax xam-xam def maa yim ci borom Touba barki bii mu nga ma wax loo xam ne ba ma juddoo ci sama ndey ak sama baa waaye léegi mosuma ko dégg ci sëriñ bi su Cheikh Souleymane Touré ma ne la dimbali ma ci bayit yi nga ne ma danaa la joxaat yeneen yu gën a garaaw boo ñëwee barki borom Touba sax xam-xam sell na te télé bii boo ci génnee. koo bokkal jiw bi bàyyi na la xel man na lu ma wax sa xam-xam daa sell nga mën a waxtaan ci borom Tuubaa boo wootee adduna bépp waroon a jëlatu biñ fii ñëw ndeysaan di bokk ak nga xam ne fukki nit dañuy bokk ak moom néeg bi mun xëyee ku ci nekk ndékki ku nekk xool foo jëm lijjanti ji bu timis jotee ñu daje wax nga yaatal ñu ba noppi sa bii bépp yaatal la nga xam ne safari bu mësaana ñëw fu nekk nga ñuy yóbbu léeg-léeg nga yóbbu nu fenn ne balaa balaa maa waxtaan faw ngeen jàng loolu na ko tas na ko tas ci internet bi man moom damaa fonk la lii na nga ko tas moom sax Abdoulaye mii mm. bi ñuy ñëw yaraax léeg-léeg daana war a waxtaan yi ñëw toog toog toog ñu ko waxtaan mu ne leen jox leen jànkati xasida yi ñu jàng ba noppi ma doog a waxtaan yaata kon yàlla suñu borom loolu la yaatal si biir ci suñu jëwriñ yi nga bokk ci suñu jëwriñ yi Ndakaaru waaw bu loolu mu leer waaw yàlla nañ fi yàgg loolu waaw seen isbaab nan jàpp xasida rek xasida daa yëngu teg dara waaw bi muy doog a ñëw fii jamono yooyu xam nga moom tam benn njaxas am njaxas la xew benn njaxas. <laughs> dëgg la njaxas walaay dëgg njaxas ba fii la mujj. waaw ah, waaw loolu boo ko mënta wax rek ma ñëw ma saan buñ ma saan dañu <laughs> roo ci kër gi ñun ñëpp. léeg-léeg Aziz. moom yére bi mën nay bàyyi ñëpp sol ko yére bu la neex moom des njaxas bi mu xewee njaxas bi mu xewee nee na gone yi dañ ko bëgg a yóbbu Casamance wax nga dëgg njaxas boobu ci laa jàngi woon mooy jindi gi bi bi ak ga maxrib bi wal di daani son naar bi waaye xanaa dana ñëw wal jindi wal جالي وسوداني في زرق والمغرب والبي داني والجني والنجاني والسوداني في والمغرب والبي ndeysaan wa kulli arsalim wa kulli faadili wa kulli xaahirin wa kulli saalili wa kulli taajirin wa kulli maasi ko door man maa ngi ko door gis. waaw ci ñaar yëpp nag mooy baas yi juróom minute la ci am. nee na baas yi juróom minute la ci am. ndax li nit ñi wër di daw am di di ko daw. yàlla bu ñu ko ci def sëñ Fallu sëñ Fallu sëñ bi dana ko. ci loolu kan dana ko teelu kan waaw. maanaam baas yi nii juróom minute laa ci am. nee na baas yi juróom minute rek la ci am. nii mu mel. waaw moom nii mu mel. moo tax mënuma bàyyi fi ne laa yor sëñ Fallu juróom bis daanaka wër nañ ko tey. waaw nee na glace yi Fallu bi juróom bis wër nañ ko tey. fu ne dugg fu nañu dugg fa. dama démb nelaw ma waaye tey jii nelaw. nee nelawut waaye nañoo ñëw rek kër fa waaye si ñëpp laat bi. mënoon nañoo ñëw rek bële fi waaye si ñëpp laat bi. damay dem Touba léegi rek. day dem Touba léegi rek. samay bàyyi fa ma war a dal. bàyyi fa ma a dal. ñëw këram. ñëw këram. man damay damay yéex a yow man daanaka ay deux lay yow. nee day yéex a yow léeg-léeg deux heures lay yow. kanam gi mu lay wan du changé. nee na saa yooyu woo kanam gi mu lay wan rek du changé. loolu yomb. loolu yaram bu baax ñoo ko ànd duggandoo ci baas bi ngay joxe sa addee benn yoon ba ni jàng mi jeexee kon nag yàlla na sëñ Mbàkke soxna loolu mi nga gëm nga dajeeg tawfiixam ci zaahir ak ci baatin sëñ Daawda maa ngi lay ziyaar bu baax ñu ngi yow it ñoo ko àndandoo duggandoo ci bas ba waxtu wi di beral ab ziyaar bu baax sëriñ Yuusu Ñaŋ Capa TV maa ngi ñaan site bi yàlla na dem ba faaw xa télé yu mag yi nii dégg ci réew mi yëpp ci zahir ak ci baat maa ngi ziare sëñ Souleymane Neng moom Cheikh Mahamadou Mourtada al Mujahid Akbar xarit la sama wël la sama doomu yàlla yàlla taxaw di beral ak nuyoo nag ñang baalo spéciale ndax bis bi noo ko ànd ñoo ci dox ñoo ci wax ñoo ci yëngutu ba tey jii ñu jeexal ndoo ko maa ngi koy ñaanal suñu borom yëg ko ay manam yokk ay xéewalam ak i suturaam xaalim seen jërëjëf taxawaay bi ma taxaw rafet na waaye nak non la mëna a demee ndax wuy oh, ju amala déw no ngi sant yeen waaye rax yépp nak tambalé ko ci ki gën a doon mag ba ci gëna a doon ndaw taxaway bi rafet na yitté ji rafet na di ziare it wa organisation sëñ Cheikh ahmad sëñ basirou ak gaay yu bax yépp rek xamna ni ñom daayir laal ndaxaare ngir sant leen sama xol sedd na yalla ñu ko yàgg fekk barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf allah ji ciub bu mention spéciale mam Cheikh mam Baye Fall ak waa kër sëñ Cheikh Fall Mbawar yëpp Baye Fall yi maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax taxawaay bi rafet na yitte ji kawe na ah? ak sécurité bi was jàmbaar ak sëñ ñoom ñëpp sama xol seet na ci ñoom ak waa daayira yëpp rek maam sant naa bu baax a baax a baax taxawaay bi rafet na lool sëñ Baye Loog waaw kay ak sëñ Cheikhouna Diouf ak gaa yu baax yi sëñ Cheikhouna ñëpp rek Ibrahima sëñ Ahmadou Fall sama xol seet na laaj maam Thierno mi jóge ba Touba di sama mag moom it maa ngi koy ñaanal sama borom defal ko tawfeex defal kattan Mara Akassa moo yoroon courant bi moog sëñ Fallou Mële sama xol sedd na ci yéen yàlla leen yàlla taxawal Sam Mbacké borom rajo yi Sam Sam tey góorgóorlu Sam jërëjëf dama ko naroon dàq waaye déet buñ ko fekkee moo mooy ñëwaat bu soobee yàlla Moustapha Sy daal la dàq moom Moustapha mu dàq na ko bi jërë ngeen jëf ah, may ngi jéggul suñu Abdou khodous mi woy juróom moma dan jangal manam lima xam lepp ci way juróom la ko jangé may tagg sax di wax mom mom ci mom la waroon tambalé té ba ma fay jang wax dëgg yalla daw bu fay ben dërëm mo yor ma sama way jur bolé maag mom mo dina jangal gratuit ba ma ba li ma xam lepp ma xam kon ma ngi lay santal ma ngi lay sant di ko jaar ci señ bi di ñaan tank yi mu fi ñëwee tay jii yalla nako suñu borom def ay tànk yi ak i té te ànd lépp sama xol seet na ci yow loolu sax jërë ngeen jëf Yacine jërëjëf Cheikh Awa Balla jërëjëf.